mi ngi noonu le président Ousmane Sonko à Vélingara nous sommes à Vélingara le président Ousmane Sonko à Vélingara malgré le blocus malgré tout ce qu'ils ont mis comme dispositif pour empêcher le président Ousmane Sonko d'accéder en tant que citoyen libre cette localité Vélingara Ousmane Sonko agsi na fi nga xamante ne moo di Vélingara président Ousmane Sonko moo nekk noonu ci oto bi ñoo ngi Vélingara taalal Président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko. mi ngi noonu mi ngi noonu malgré le blocus l'homme est là le président est là le président est là. Il est là. président Ousmane Sonko Vélingara Vélingara Vélingara ils ont mis un blocus ils ont mis un blocus il est là Ousmane Sonko président Vélingara un homme libre la liberté de circuler il est là le président Ousmane Sonko et nous sommes à Vélingara la caravane pour la liberté la caravane de Le président Ousmane Sonko, ici à Velingara, la caravane de la liberté est à Velingara, malgré le blocus, malgré tout ce qu'il y a eu, j'ai de grenade lacrymogène. blocus, arrestation. Ils sont là. Ils sont là. Nombreux. Nombreux. Nombreux. Nombreux. Ils les mains. Président Ousmane Sonko avec le peuple de Vélingara. Mingi noonu. Le président Ousmane Sonko dans les rues de Vélingara. le drapeau du Sénégal qui flotte derrière comme toujours xale accéléré cadence bi mi ngi noonu ñoo ngi Vélingara le président Ousmane Sonko la caravane de la liberté à Vélingara un citoyen libre un homme de paix, un homme du Sénégal, espoir de ce pays, le président Ousmane Sonko mi ngi tey bloqué nañu tali door nañ ay lacrymogène def nañ lu ne waaye waaye yàllaay borom dogal. non non non non non non le président Ousmane Sonko. mi ngi noonu teraanga yaa ngi noonu may nañ ko leket bi ak adiya yi mi ngi noonu mi ngi noonu ay waay lii ku ci mën dara lii ku ci mën dara lii ku ci mën dara Vélingara Vélingara on va peuple de communier ak Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko mi ngi xool montre bi mi ngi xool montre bi guddi guddi Tamba guddi guddi Tamba mi ngi noonu fii ñoo ko moom président Ousmane Sonko mi ngi noonu Pokolale Regardez cette foule, regardez ces jeunes, regardez cette admiration. Regardez ces gens. la marée humaine à Velingara, la marée humaine à Velingara. le président Ousmane Sonko. Le lion est là, le lion est à Vélingara. Il lève les mains en de victoire. C'est l'Alliance populaire, président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko. Regardez cette foule. Regardez cette marée humaine. Regardez cette marée humaine. Le président Ousmane Sonko dans les rues de Vélingara. Vélingara, on t'avait donné rendez-vous et Ousmane Sonko respecte toujours son rendez-vous. Le rendez-vous avec le peuple sénégalais.